ma wax li ba waxoon rek xaw ko tënk tuuti ci wolof ay balay loolu nag ñu remercier gërëm ñenn ñoo xamante ni ñu ngi fii ànd ak ñun ci association bii di AMAS muy ACS ñëw rejoindre suñu association bi AMAS AMTG aussi Vision Sénégal la Sophie euh, di suñu marraine association bi Pendou Chia di vice présidente bi euh, euh, di vice président diaspora merci vice président diaspora ñu gis tamit Samba Diop bu Passy président association la kon su ma xoolee wala ma wax damay gis ne que Amas mi ngi gën di màgg ah di gërëm aussi Saloum bi nga xam ne wax dëgg yàlla souvent day nekk suñu wet euh, di ñu jàppale gërëm aussi ki nga xamante ne moo yore foire yi muy euh, le docteur mali Diop ASAPEX di accompagner suñu entreprise yi mais bu loolu yëpp nag weesoo fulla ji ak fayda ji mooy doon ñi nga xamante ne ni dañuy nekk ci liggéey bi te teguñu ko si yoon parce que léeg-léeg nga gis yenn ministère yoo xamante ne ni nit day gudd loxo fu mu yónni loxo mu jot ko c'est-à-dire mun na jël échelle am yéeg ci échelle bi bu mu euh, marché masque yi ñëwee mu dem yootu ko jël ko jël ko ci benn njëg ñëw di ñu fay njëg yu néew te ku nekk xam na ne que ñun ñi nga xamante ne ni ñoo nekk sur le terrain ñoo yor xale yi yor apprenti yi bu ñu jëloon apprenti yi tey bàyyi la ñu taxawal ci mbedd mi mën nañu nekk agresseur buujumaan wala leneen kon yaakaar naa ne état war nañu gestu ci loolu noonu fi ñu toll ni nag tey suñu ministère de tutelle moom la ñuy adressé la parole di wax ak moom ne ko après pratiquement un naa ñu yónnee ko courrier boo xamante ne ba tey tontuwuñu te nag ministère ministre bi bu toogee foofu tey askan bee tax mu toog fa ma bëgg ñu xam ne. direction bu ñu la dénk wala ministère boo xamante ne dénk nañ la ko yërëmal askan bi en retour ñun ñi nga xam ne ñu askan bi ñu jox la cër mais bu fekkente ne na nga courrier ñu ñu jox la accusé de réception war na jot a courrier bi après un an mun la recevoir mun la xool kon ministre boobu loo koy doyeeti dama ne il faut que ñu joyantiwaat suñuy toogaay tuuti il faut que ñu gëstu askan bi lii mooy indi gars yi di jël gaal gi. wala ci euh, dugg ci géej gi di rey seen bopp ñun on a dit non ñun dañuy wax ne dañuy toog fi liggéeyal Sénégal nekk au euh, des chefs d'entreprise yore ay chefs de famille yu bari yoo xamante ne tey ñun ñoo leen di fay ñu yóbbu seen i njaboot. gumba ku ko saraxatul tam bàyyi ko yalwaanam li nga xamante ne nii tailleur yee ko moom li nga xamante ne nii ñun ñoo ko nañ ko yëkkati jox ñu ko te ñu bañ naan. ñenn yi nga xamante ne nii ñoo yore entreprise yu ngand ngand yi ñu gën ñoo siiw gën ñoo fës bu dara amee ñu dem toog ak ñoom entre quatre murs yëkkati lañ leen war a jox jox leen ko dama ne trop c'est trop lu ëpp tuuru laa waxatuñu ak benn ministère ki ñuy waxal mooy le président de la république mu def ci taxaw seetlu woo association yi jël leen dugal leen ci comité yi nga xamante ne nii foofu la décision yi di jóge lu waay xam-xam sàmb ma sàmba gën laa xam boppam du ma wolof nag xëy na euh, bu ko gars yi déggeewul noonu tam ñu xam ne du ma wolof quand même donc nañ ñu jël dugal ñu foofu noonu ñuy togg di saytu di leen jooyante dinaa ne nii la wala nii la bu loolu passé bëri na ay jigéen yoo xamante ne nii yenn ministères yeeg yooyu duñu fi respecté dara lan moo tax boo leen fekk see si seen biir direction ñu wax la lu saf sap suukar ko euh, lem ko soo génnee ñu rangé ko teg na la mu nekk sans suite il faut qu'ils arrêtent nañu nañu arrêté li ñuy def noonu naxee mbay xam nga lan la suñu secteur bi si boppam maa ngi dégg ñu naan tant pis tant pis tant pis mais notre secteur est tant notre secteur est vraiment tant na ci président wax nañu dimbali lay war a sóoli mu gëstuñu ba li fi amoon ci masque yi bañ a amaat une fois de plus ci euh, uniforme scolaire yi ak tenue scolaire yi jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk yi. ñu leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di gërëm teewaay bi nga xam ne yéen suñu mbokk journaliste yi teew ngeen fii pour fas yéene jottali waa réew mi suñuy kàddu balaa dara dañuy tàmbalee ci gërëm le président de la république monsieur Macky Sall avec son gouvernement ci lan lañ koy gërëm. ci dogal bi nga xamante ni jël na ko ni fii ak ñetti at yi di ñëw ci kanam dafay bëgg élèves yi écoles yi ak élèves yi élèves yi nga xamante ni ñoo nekk ci suñuy gox-goxaat ñu sol ay tenues ñoom ñëpp ñu nuróole ko si gannaaw loolu nag ñu ko siy gërëm di ko ci sant di ci gërëm tamit monsieur Saloum njaay ku ne gis na taxawaay bi nga xam ne mu ngi koy taxaw gannaaw ba ci masque yi gannaaw yàlla def na mu demee ni mu demee su loolu weesoo ci tur Amas dañuy ñëw ci tur suñu njiit muy Bamba Sow di suñ président di Ahmed Diop suñ premier vice président ci Sidi ja di secretaire général ak Lamine Ara nekk suñu trésorier général dogal bi nga xamante ni suñu njiitu réew bi suñu président Macky saali jël na ko dañuy bañ mu naax saay jaar ci bunt yoo xamante nii du yooyu bunt moo ko taxaw a jóg ndax ku ne xam ne ne am na fi ay industrie yu fi ne walla ay mbootaay yoo xamante ni ëpp na suñu juddu ba ba léegi ñu ngi fi ci temps ba léegi ñu ngi fi te lépp loo xamante ni mas naa ñëw jëm ci mbiru artisanat surtout ci suñu suñuy ñoñ muy ay tailleur gis nañ ci ne ñooñu dañ ci daan taxaw jël ko delloo siwaat ko ci nga xamante ni ñoo taxoon marché ba jóg muy ñu leen di soumissionné mbir mi te gis nañ ne mbir mi bi mu amee tailleur yi lañ ko jagleel ak stylistes ak modélistes yi mais waxuñ leen yan condition lañ war a def ba mën caa jot loolu amul te du yoon beneen bi ci des mooy war lañ leen di yombalal wax leen fan ak fan lañ mën a jaar ba nga xamante ni loolu ñu leen jagleel bu ñëwee du leen weesu te du leen moy dana fekk ñu jëmale ko fañ ko war a jëmale beneen bi ci des ñuy bañ structure yu mag yooyu nga xam ne dañoo xaw a jege état wala dax ma ne dañoo jege état nekk ci seen biir ñu bañ la ñu daloon ci masque yi dalaat ñu ci lii moo tax tey jii ñu ñëw toog fii di yëglu ndax masque yi dafa am fu ñu ko jaarale woon xeebuñ nag liggéey chambre di métier mais dañoo xam ne chambre di métier yi des na parce que mouvement associatif yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox-goxaat yi nekk ci biir raison yi nañ ca waroon a jotee jotewuñ te noonu moo tax tey ñu ñëw toog fii pour waxtaan ak xool yan pexe lañ mën a def ba nga xamante ni loolu nga xam ne président jël na ko jëmale ko ci tailleur yi ñu xool lu ñuy def ba muy àgg ca tailleur yooya ci kaw nan xamal leen fan lañ war a jaar ak yan këyit lañ war a ut pour nga xamante ni bu loolu génnee ñoom dinañ ca mën a jot loolu moo tax suñu teewaay fii nii tey di ko gërëm moom président parce que li mu def tamit yombul beneen bi tamit di ñaan liggéey bii nga xamante ni jëlee na ko ci ñetti at yi ñuy ñaan ba mu teg ko ci ay loxo yu wóor muy ñaan tamit ba nga xamante ni bu at mu ne nañ ko saytu xool fu ñu tàmbalee woon xool fa nga xamante ni fa lañ yem bu fekkee ne am na ay rëq-rëq yuñ ci war a jooyanti ñu jooyanti ko balaa deuxième balaa ñaareelu at bi di ñëw ba ñuy egg ci ñetteelu at bi loolu bokkoon na ci li nga xamante ni ñu ngi koy. jooy ak di ko ñaan ndaxte dañoo gis ne acteurs yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo tax lii nii jóg bi ñu jël ay décision ak di ci wax dañ leen cee boolewul ñu ñaan nag ñu boole ñu ci mbir mi parce que nit kat boo koy defaral war nga koo laaj lan ak lan nga bëgg ma defaral la ko wala soo koy may nga laaj ko loo bëgg ma may la ba mu wax la ko mais suñ toogee ci seeni bureau climatisé jël ay décision yoo xamante ni su wàccee ci suuf arrangé wul ñun artisans yi arrangé wul ñun tailleurs yi dana nekk loo xamante ni dina xaw a doy waar torop ba tax na ñun ñu gisoon ci ne nañ gën a yaatal programme bi nañ gën a yaatal mbir mi ba ñun ñi nga xam ne ñun ñoo tax ñu yëkkati ko ñu dugal ñu ci biir wax ñu nuñ ko bëggee ba ñun it mu mën a oyof ci ñun beneen bi ci des it ñu wax ñu ndax buñ demee ba mu ne këtt na jon ñu soog ñoo wax su boobaa day nekk en retard ñu xamal ñu yan xeetu tëni lañ bëgg yan xeetu tissu lañ bëgg ak ci yan norme lay laaj ndax ñu mën cee jublu bala ñu caa yegg loolu nekkoon na ay kàddu yoo xamante nii ñoo waxoon ne nañ teew fii waxtaan ci jooy ci ba nga xamante ni li nga xamante nii président jël na ko jëmale si ko su ñun ñu ñaan yàlla moo agsi ci ñun ba dara du ko fànq di nekk suñu diggante ak loolu loolu moo nekkoon suñuy kàddu ñu teew fii doon ci waxtaan ak yéen ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di gërëm président parce que gis nañ ni def di gërëm it Saalum Njaay mi nga xamante nii bi masque yi ñëwee def na kemtalaay kàttanam ba nga xamante ni am na luñ ci jotoon a jël ñuy ñaan nag li nga xamante ni ñun ñoo ko moom muy tëni yi ñu fexe ba mu agsi ci ñun dafa am lu fi jaaroon ci ay weer ci gannaaw mu nekkoon marché masque yi ñu binduloo ñu woon defloo ñu woon lu ne ñu def ko surtout nag ba ci sama raison ndax lu mat cent 150 personnes jëloon naa leen pour loolu rek taxoon ko jóg mais suñ boroom def ne ba a génnee fa mu waroon a jaar jaaru ca ndax mujj gi dégg rek lañ ci am soo gisee na tey ñu daje fii di woote bind nañ yóbbu ko ci les structures de l'État mais tamit dañoo bëgg a yuuxu ba buñ ñu déggee xam ne la fi amoon la ñuy bañ mu amaat fi moo tax ñu toog fii tey jii di ko jooytu